non man lu ma la ci bëgg yokkal rek mooy léegi la majorité mécanique bu ñu bëggoon renouveler seen euh, mandat ñoom ñii mën nañ def seen projet de loi ñoom ñi seen biir déggoo prolonger seen mandat. au lieu de faire mandat de cinq ah, parce que c'est ce qu'ils ont bien sûr ah, c'est ce qu'ils fait. ils l'ont montré ils donc ñoom tamit mun nañ def projet de loi ñu ne nañ leen prolonger. de cinq ans trois ans quatre ans c'est c'est-à-dire que lu ñu def démb. c'est c'est un sacrilège. contre mm. la constitution. Mm. sacrilège la te lu ma si gën a jaaxal. et bala ngaa sori sax. et mm-hmm. ci biir yokkal bi ñu ko yokkal. Mm-hmm. est-ce que yéen. Mm-hmm. doo leen dugg seen deux ans yi te boo duggee seen deux ans yi président am na droit. te gaat tas assemblée te gaat ko c'est-à-dire il est dans ces choses là. tout a été calculé donc. tout a été calculé faut pas penser que dafay def pilotage à vue. et et et c'est quand il fait ces bassesses là nit ñi di ko wax génie politique ça n'a c'est pas du génie politique. Absolument. c'est pas ça c'est de la bassesse de la malhonnêteté euh, du ñàkk jom lii la du ñàkk war man noonu laa ko tuddee parce que quelqu'un qui se respecte quelqu'un qui est am na yoo xamante ne doo ko def parce que tu as da nga da nga jurer sur l'honneur da nga jurer sur le protecteur de la constitution am na loo xamante ne waroo ko laal constitution ke waroo ko laal da nga jurer te lu ma ci gën a jaaxal mooy en 2021 de 2011 dañoo ko waxee c'était Ablaye Wade moom lañ daan moom lañ daan accusé. 2011 de, de, de, oh, avec le quart moom la eh, eh, wax ni moom moo war a moom moo bëgg a laal. le conseil oui. le, le conseil la constitution la constitution. mën naa laaj doguma la de. le quart bloquant dama gis cette actualité nii dañ ci wax 2011 lan moo nekkoon euh, problème ak quart bloquant. quart bloquant maanaam lii war a tax ñuy dem deuxième tour. si li la waroon may euh, li waroon may euh, xob yi waroon may ñu dem deuxième tour la ñu réduire bu ko defee nit ki waroon na mën a jàll waroon na mën a jàll d'office euh, premier tour non c'était pas ça c'était quoi alors waaw ah, kay ñu bari dañ ciy wax dafay baax ñu leeral waaw waaw mais ce serait quand même plus élégant de vous laisser parler. waaw waaw dama doon après ñu ñëw ci. léegi la fenêtre peut s'ouvrir à tout moment. d'accord <laughs> n'est-ce pas léegi comme je je donc ils accuser le président Wade de vouloir violer la Constitution. Mmh. Ce qui a de ce qui est ce qui euh, a d'extraordinaire c'est que le monsieur bu ko doon accuser te mu wane Ablaye Wade bu touché à ma Constitution dañ koy au palais. Oui. et à partir du 2 avril. Mhm. Ablaye Wade bu bu kii bu bu continuer rester au palais ñu ne ñuy ubbi un gouvernement parallèle. c'est ce même monsieur moom moo laal la Constitution en avec les enfants d'Ablaye Wade. est-ce que est gis nga ironi bi. Hmm. c'est-à-dire que les dirigeants du PDS je ne parle pas de tous les militants. Hmm. mais les dirigeants du PDS les élus du PDS ñoom ñoo dem ànd avec Macky Sall pour trahir la constitution et trahir le président Abdoulaye Wade. kon nag pour dire que ñoom lu ñuy defee politique dafa salté et c'est pas ça la politique politique affaire de gentleman la et c'est pour cela je dis que tout ce que fait Macky ak ay nitam. ça n'a rien voir avec l'élégance politique lu ñuy def ñoom ñoo xam nañ koy wooye mais ça n'a rien à voir avec la politique ce n'est c'est tout sauf du génie politique parce que c'est également de la méchanceté et de du super égoïsme parce que il ne pense pas à la population tey par exemple nu ñu coupé euh, le le wifi la connexion combien de jeunes entrepreneurs tey ñoom ñoo nekk di perdre seen. de de l'argent les données mobiles waaw waaw nu ñu coupé les données mobiles. Mm-hmm. combien de jeunes entrepreneurs ñooy liggéey avec ces données mobiles là. Mm-hmm. depuis démb néew ñu di liggéey. Euh, j'en profite également pour masawu waa Walf parce que lu ñu dund c'est atroce mais le monsieur il est coutumier des faits cest à que ñoom élite boobu noonu ñoom lu leen arrangé la ñuy xool. lu may def nii gaañ na Samba gaañ na Demba Samba ak Demba nga xamante ne ñoom ñoo ma yóbbu tey fu ma egg. Mhm. sama yoon nekku si le plus important c'est que moi j'obtienne ce ci je veux. Mhm. et les élus du PDS ak ak ñu ñu àndal les c'est-à-dire les dirigeants du PDS ils sont contre parce qu'ils se disent que si l'antisystème vient au pouvoir tey Yaya Yom Building qu'on est en de réfectionner depuis je te combien d'années maintenant et avec combien à coup de milliards je ne pourrais pas bénéficier de ce genre d'argent tey su ma bàyyee ba antisystème bi nekk au pouvoir euh, l'argent du Covid le milliards du Covid qu'ils ont utilisé xamante ne dafa dem dans des marchés je ne pouvais je ne pourrais pas en bénéficier donc il faut que ñu bloquer tous ceux qui sont de l'antisystème parce que man je veux être un multimilliardaire grâce sur le dos des Sénégalais et donc il faut que ma combattre li looloo undi lii yëpp seen liggéey bu ñu def mais ça n'a rien à voir avec avec l'amour de la patrie lu ñu daan wax la la patrie avant le avant le parti c'était juste des des balivernes juste des des phrases vides qu'ils disaient uniquement pour la population